alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbi wa salama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu sunu kilifa diine yi di jiital ci nuyoo bi ali beyti rasulillahi waa kër saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam teg ci xalif généraux yëpp teg ci kilifa aada yëpp teg ci kilifa addina yëpp nuyu ñi ci hôpitaux yi ak ñi ci kër yi ñi ci mbedd mi di ko doxee te tawat yal na leen yàlla wéral bi jaay rasul sallallahu alayhi wa ñi nekk ci prison yi yàlla na yàlla teggi natt woowu ci ñoom ku mu na ma jubal jubal la yal na leen jubal te jubal ñu te jubalal ñu te teg ñu ci njub bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam góor ñu baax ñi nekk ci réew mi ak bitim réew di doomi réew mi di daan seen doole ngir teraanga ju ñu man terlee te tedd ci. terloo ci yal na leen ko yàlla jàppale bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu boroom dolli jàmm ci réew mi dolli ci askanu réew mi jàmm bi hurmat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nag li ñuy ubbee mooy li yàlla bind laata muy bind dund muy dee te duñ tàggoo ak moom yàlla tàbbal ci ñun mbër moomu di mbërëm takkal koy jaajë ni ko di nga bëri ñëpp te dinga daan ñëpp waaye bu ñuy jël yàlla nañ fekk ci li ko neex moom yàlla sunu boroom ñuy yëkkati njaal di ko jox sunu xarit sunu lépp di Tahirou saar mi nga xam ni way juróom bu baax wa El Hadj Mouhamadou Sarr moom moo wàcc liggéey ñoo ngi ko koy jaale mook njabootu way juróom ga yëpp ak mbokki way juróom ga yëpp di ko jaale Marème soxnaam waaye di ko jaale mbokki Marème yëppit di ko jaale mbokku dëkkandoo yi meen gaño ak soppeek xarit di ñaan sunu borom yàlla na ko teeru teral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaale ku baax réew mi mu mbokk mu bokk ak ñoom waaye ni mu bokk ak ñoom noonu la jële boppam jébbal ko réew mi bu xëccoo ci biir ndakaaru ndombal tànk ak ci réew mi juddoom def ko koy jox waaye jikko jaa ñëw couleur ko kooku mooy El Hadj Doudou Wade président groupe parlementaire libéral bu PDS di doom ci El Hadj Abdoulaye Wade di nit ku yàlla baaxal su ñàkkee soxnaam ñun ñëpp ñoo ko ñàkk ndey ñoo ngi ñaan sunu borom teeru la teral la boole la caay ñoñam bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi jigéen nag nag xatraayu ba am ngërëmu wuy denc di borom këram boo làqee sa ngërëmi wéyjur làq sa ngërëmi borom kër làq ngërëmi ay wéyjuram làq ngërëmi ay mbokkam xel dal na ci waaye ñoo ngi wax daal ni ñoo ngi jaale képp bokk ak Doudou Wade ci meen ak ci geño ak di dëkkandoo di soppe di xarit mbaaxam rëy na ba xam ni landi buñ doon tegee lu metti kenn du ko teg waaye yàlla nag mooy programme lu mu programme du dañ mukk waaye yàlla ko yàlla boole ci ay ñoñam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñuy jaalee Babacar Diop Lalla mu Cheikh Lalla ba xale bu baax xale bu am ngërëm yi wëy juram kenn mus koo dégg ci dara kenn mus koo xam ci len yal na ko yàlla yërëm te yeexeñ bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam jaale it Abdourahmane Sall mu baax mi imaam xam ni yaayam ju baax mun na Senghor làq na moom làq na ngërëmam waaye maamam ju baax ja Cheikh Adel lii mu cheikh taalibi mu cheikh na cheikh saad bu làq na ngërëmam abdou imam buñ doon tegee lu métti sàll kenn du ko teg ñoo ngi lay jaale sa doom ji di ñaan sunu boroom teeru ko ca bar saqu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ëllëg yàlla nañ dëkk ñun ñëpp ak ñoom ñu jiitu ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam vieux ñu àndandoo dem ziyaari sunu waa kër maam cheikh Umar Fouti wala fu la neex demal di wax ni Vieux Diouf moo nekk ci technique bi ànd ak ñoom Mouhamadul Mansour ànd ak ñëpp équipe technique boobu ñoo ñoom pëteg ñëpp ñoo ngi yëkkati sunu nuyoo di leen ko jox waaye njaal mi ñu joxe njaalu groupe Futur Média la ñu aw ci Mara Dieng mu ànd kilifa kër gi yëpp ak njabootu kër gi yëpp ñu ànd ak ñoom dem jébbale njaal mii ñu fi joxe léegi waaye ci sama kàddu lañ ko baaxale rek ne naa ko génne waaye kër gi yëpp ñoo ànd ci njaal moomu di bokk ak yéen tiis wi tey ñaan sunu borom def ñu ay ganam te bañ leen def gani malaayka bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam bismillah sise jaka sise maada ñu ne yonent ba Badru ma joni balla yonent du weer ñu ne yonent du weer la ma joni balla yonent du weer la ulama kafallahu jawhar wa khalaqa min jawhari zulma wa khalaqa min zulmi nur rasulina Muhammadu jamaa la yonent

ni bii di asamaan ni bii mu bind ci ni bii mu bind ci ni bii mu bind ci bii di àjjana bii di safara bii di àjjana bii di safara soo xoolee ba gis say bët neexul leeru Muhammad soo dégloo ba dégg say nopp neexul leeru Muhammad soo jàngee ba xam du soog yu yow leeru Muhammad nuru absaaril mu'minin sana ñi bëgg seyduna muhammad muhammadu rasulullahi dunyan wa uxra jamian min malaatihi yow yonent bi lawlaaw ma awjada allahu alwujuda ku sopp rasulillahi lawlaaw ma awjada allahu alwujuda wala xad kaana muhammadu rasulullahi ku sopp yonent bi defal nii nu màggal seyduna muhammad ولا قد كان ما كان إلا من كرامته سر أهل لا يستنسقن هواها واركض برجلك آليا برباها سر أهل لا يستنسقن هواها واركض برجلك آليا برباها سر أهل لا يستنسقن صباحا زرعا مدران تسي الأوى ودرة العين توجها تسي الأوى ودرة عين توجها لنورها ودياها وصباها زلال لا يتسي أداها واركض برجلك حاليا مرها وأهل الله وكفى بها فخرا وجودك رودتها seen maam anwaaru rabbi daiman taxsaaha sama baalu la yastansi anna hawaaha warkut bi ilka aliyan yurdaaha yow de doy laa nanu la maam alhaaji ceerno mu ahlu laa ilaa ilaa vieux jërëjëf kenn du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sunu borom wéet rek dagg ci leeram ni nekkal mu nekk Cheikh Saad bu Samb wax nañu ko léegi di sama soppe di sama xarit di sama lépp kooku ku mu gënul way jur gisuma ku lay gën way jur tànneef la ci biir tànneef yi dañ ko tànnal léppam El Hadj Cheikh Matar Seck mu nguraan xalifa maam Cheikh Déthié Lô wax nañu ko nee na ku ko gisul ci biir suuf am problème kon ku toog ci kaw suuf yàq ko lu la neex mbaa nga yàq way juróom lu la neex xaw ma foo jëm ki tax ñu bind la bind sey way jur bind sa way juri way jur bind way juri way juri way juri way jur ba ca maam Adama tax ñu bind maam aadama bil bashar lu sunu boroom bind moo tax boo toogee bay ŋàññ lennam danga gorewul waaye ñun de yàlla nañ yàlla boofloo ci ngor yokk sunu muhabba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci waajuram ak ci njabootam ak képp ko xam ne sopp nga ko te di ko bayal yal na yàlla ma yërmande ca moom doole ay leeram te taasu ci barkeem bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku weddi nag ni yamul ak sa kenn xoolal fi nga dëkk xoolal li nga am lu ci baax mooma ku weddi daal ni yow gënu la lenn lennam gënul sa lenn bul sori léegi rek ci fajar bu ñuy bi ñuy nodd bay nodd suba nodd tisbaar du sa maam du sa papa du sa yaay du sa mamaat du kenn ci yow turam kott dong ngay dégg ci biir mu wétali ko mu wét mu wétali tur yàlla sunu borom yàlla lënkale turam ak tëru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla moo lënkalee turam ak turu rasulullahi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu tax nga gën koo war te gën sant ñaan rek yàlla dolli leeram taasu ci barkem loolu daal mooy li xam ni ñun moom la ñuy ñaan te yàlla na ko yàlla def bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa yàlla nañ boole ci ay ñoñam waaye ren loolu baate nan dunya wala axira bi rumat rasul sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu sunu sang bu baax bi Alaaji maam Abdou Dramé bu Andulaay léegi di ko awalee ci Papa Ndiaye mi xam ni moom lañ doon seetaan léegi déglu ko taataan ko dégg li mu wax rasulullahi sallallahu alayhi wa awale ko ci El Hadj Maguette Dramé porte parole ba vie ñu dem. فقل للذي يونا بحبي تنفلي أنا جبك سيدنا محمد فمدح رسول الله من أوكد الفرد كوكو ورا الجتاي بي mooy Seydina Muhammad Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo tax seen Seydi El mooy seen mooy sunu mooy sëriñu sëriñ si ku bëgg Seydi El Hadji Malick def la mooy Souleymane Amrin mooy Moussa Yine bi nekkatin Maodo ay xale la diini. mooy sunni li muhammadi mam mawdo mooy dammun mawdoy xaalisun wala dammun xaalisun laa yaqdir hamra saaratan min a dayni aw nun li lay baawu sedi wax naa leen Seex Sidi Haaji Malick moo mën a jàng moo mën a jàngale moo jàngal ñi raw tukkulóor séeréer pël wolof naar Serigne Babacar Sy ak melokaanam bu njëkk bi du ko jëngal du ko wengal du ko sengal fam ko tegoon daaw fa la koy teg ren du xaxtandiku du tifli du benkal du taxaw benn tànk weñ du ko dal daa silwiise ku bëgg Serigne Babacar lay si Mansour dëkk ak baayam dëkkaale baayam nuróo baayam Maodo ko jàngal Alaaji borom Sàmbe Sembe borom Gàmbi Saala borom Reeju Neex mooy maaraajee mu baax maa ngi nii toog xoola rek festival salaama ngi gaa yëpp a ngi nii waaye bi ndey Seydina Muhammad ñu gën sallallahu alayhi moo ñu gën wéy juram a gën sunuy wéy jur ay maamam a gën sunuy maam ba ci àddinaan ay maam a gën sunuy maam njabootam a gën sunuy njaboot njabootam ñoo ñu gën lu tax ci moom rek moo ñu gën waaye accident wax kenn mënu koo constaté de moog bu lekk yam kenn mënu leen constaté yal nañ ci yàlla musal bi jaay rasul sallallahu wax bu bëree rek asaka ja génn waaye ñoo ngi ziar bu baax baax nit ku yàlla baaxal sëñ Mbay Si Mansour mu maam Seydi Aj Malick xalifa bi tey mooy sunu maam Seydi Aj mooy sunu baa yëpp mooy sunu mag yëpp mooy ndey mooy baay mooy xalifa bi mooy lépp tey loolu yàlla dogal nañu nangu ni sunu kilifa yi toog ci bérébu maam yi nañ leen di xoolee maam yi yal yàlla guddal seeni fan yéen xalif généraux yëpp dolli seen jàmm yéen xalif généraux yëpp dolli seen wér yéen xalif généraux yëpp ak njaboot gi te boole ñu ci boole ci jullit yëpp bi hurmat rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ya rabbana ya rabbana fa qul lana وجيلنا لطفا وأمنا يا أخي يا من تغالى لم يكن قوانا Ibrahima Fall jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall ku sopp Cheikh Ibrahima Fall borom ñu ne wax ak yàlla ñu ngi magal Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima yaakaar suñu xol def ci liimaan yàlla la baaxe def la ngay xut bi zamaan xarnu bi alaaji fallu mbakke yaa ñàkk ku ñaan ku topp sëriñ fallu mbakke bay sëriñ mamor mbakke baax baayu sëriñ mamor tay jaxate alaaji fallu laay alaaji fallu alaaji fallu alaaji fallu alaaji fallu ku topp sëriñ fallu defal nañu magal alaaji fallu kii de maam Cheikh Ahmadou Bamba lañ ko tudde ñu koy xaadim mbay billaay wax na dëgg xoolal maam Cheikh Ahmadou Bamba xoolal maam Seydi Hadji Malick xoolal li ñu yekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yekk ko ay waajuram yekk ko ay maamam yekk ko njabootam yekk ko ay saabaam yekk ko ay ñoñom waaye yow ñun maam yi ñoo am kenn daf leen a am yal nañu yàlla fayal sunu maam yi. vieux maag yow du ñu sori Amadou Diagne Fojeka ñoo ngi koy jaale kër gi yëpp a ngi koy jaale frère bi génn àddina. yal na ko yàlla teeru teral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ko baax nitu kër gi la Pape Babacar Ngom Sedima mu ndee la mu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi koy jox nuyoo bi di ko jox nag mbay seen mi nga xam ni mu ajaa naani Jóob mu Pape Babacar Ngom di nuyu bu baax a baax nit ku baax yi ajaa gay wilaan mu baax mi waaye ñoo ngi nuyu nag madame Fadiga Aïda Sey Gibraltar Maymuna Fadiga Mariste Kumba Fadiga di nuyu Fatoumata Farmata Soumaré Gibraltar di soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aïda ak famille bi yëpp waaye nag di nuyu bu baax a baax kooku nag sama waa ji la asan asan asan ndong mu baax mi waaye di nuyu nag bu baax a baax ci ñu waxtaane bi njabootam yépp muy ajaaram jën mu baax mi kooku patrimoine mondial la kooku mooy état civil kooku mooy trésor waaye foo mu tëdd ak njabootam nga yal na leen yàlla yeesal yërmande ci ñoom dolli jàmm ca ñoom dolli seeni leer dolli ngëneel a xéewal ca ñoom biiru ma Muhammad sallallahu alayhi waaye nuyu nag bu baax a baax ki xam ne mooy xaritu ñépp ndax lu dagee ci aram jënd ak baax nga turandoom yépp ñoo ngi leen di nuyu waaye di ko jox aram jeen Cissé mu ajaa Gaël kamara ak Alaaji Souleymane Cissé bu dee ci sët yi nag dañuy génne Malick ni ko nul ñu ñëpp waaye dañu génn kër Baye Daam sunu imam bu baax ba kër Ahmed duñ fa génn baro yàlla na nga fi yàgg loolu jéen mën nga seen kanam ñoom bi ñu demee mën nga seen ginnaaw yal na lay yàlla taxaw bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam waa kër Haaj Madun Jéen it ñoo ngi leen di bu baax a baax nuyu nag askanu Lebu gi yëpp waaye nuyu réew mi yëpp bàyyiwuñu kenn vie ñu dem seeti ay da baay la mu lay barham wax Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak di mu digal njabootam ñii de néew ñu xas leen lu bokk ci rasulullah déedéet ba ci way juri sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam lee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal nañ ci yàlla musal naa dañu fàtte ni suuf sii nabee ñu bind ko te ñun ñëpp ci lañ ñu bind te danañ ñu ci delloo sallallahu alayhi wa sallam ku ko sikk xas ko foo jëm xaw ma ko yéen a jóg la la Mbacke jërëjëf yal yàlla gën a barkeel xam-xam bi bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam nuyu El Hadj Baye Niass fii carrosserie Moulay Barham Niass jàkkaarloo xayma bi fii ci ñaari tali waaye di nuyu ko bu baax a baax Adja Koña Diop mu tufa yoo xam ñuyul Adja Wolo ak njaboot géeg ñëpp bàyyiwuñu kenn Adja Marie Pierre Paye ñoo koy nuyu di ko ziar Idrissa Baxa yoxo ci Nouakchott ñoo ngi koy nuyu di nuyu nag bu baax a baax Paya Gueye ca Nouakchott di nuyu Adja Aïssatou Sarr ca Nouakchott mu Cheikh Sidati Marayni mu Cheikh na Cheikh Taliba mu Cheikh na Cheikh Saad ñun ak yéen dañuy àndaat fu ñu jëm vieux bismillah Youssou waxu boolewoo dara ak wax xam àddina moo leen di mbokk réew mi yëpp Cheikh bu Jóob waay Aminatu juróon na ju doom te doom mel ni mboom ba mukk mukk mukk sayda awliin wala axirin lu ñu bind na bee tax sallallahu alayhi wa sallam Adja Daba Yaate ci Espagne ak borom këram Papa Diaw Amore ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax gis nañu yóbbante bi gis nañ nuyoo yi ñoo nga toog di ànd ñu di ñu seetaan waaye Pape El Hadj Pape Tuuti Mbaye Médina moom it ma nga toog di ñu seetaan Ajaaware Diouf Médina ma nga toog di ñu seetaan mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aja Penere ñaan ak njabootu El Hadj Cheikh Ousmane Diagne ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar gis nañu nuyoo yi gis nañu lépp met jot Diagne nuyoo baa ngoog joxal ko nag ñoom Abdou Diagne ak ñëpp jiileeg ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye ñoo ngi nuyu bu baax a baax. Cheikh Seck président Jaraaf di teraangay diine l'islam jàkka yi Cheikh Seck nga ca dëkkandoo yi Cheikh Seck nga ca jumaa yi Cheikh Seck nga ca néew doole yi Cheikh Seck nga ca am péete nag muy kër maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu Seydi Aboubacar Mansour di léppam mu topp ko ci lépp déglu ko ci lépp ndax xam na ni génnul xaala laaw xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam si yàlla na nga fi yàgg yaa xalif yëpp ak sama waajee laa Cheikh Matar Seck mu nguraan ñu nii bu baax a baax ki nga xam ni mooy Cheikh Aïda Sarr mu Cheikh na Cheikh Saad bu waaye bokk nag ak ki nga xam ne mooy Baba Lamine mm, mm, menn maam nuyu bu baax a baax sunu doom sunu xarit Seydi Aboubacar sek mu Alaaji Cheikh Jaaji Seck mu Cheikh Omar sek mu Cheikh na Cheikh Talibe mu Cheikh na Cheikh Saad bu ni xalifa nu yoo baangoog dox ñu ko Badara ca Italie waaye bul bàyyi Maguette Ndiaye mu Adja Khadi Seck mu Cheikh Birahim Ndiaye surtout Cheikh Déthié Lawba ca Milan bul ñu bàyyil Aïda Diop mu Cheikh Massamba Diop ca Milan bul ñu bàyyil Khadi Guèye mi nga xam ne mooy lépp Cheikh Al Khalifa rahmatullah alayhi wa xeertu ca Milan ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ñëw nag ci ki nga xam ni moom mooy sunu lépp di maaraajee mu baax mi maara yaatal lañ la wax de waaye yow de def nga ko àllu baay ñaax yaatu na lool jëng yan na yàlla dolli sa jàmm ni ñoo kër gi yëpp nag yow lañ koy jox tey nga joxal ñu ko ñëpp kilifa joxal ñu ko ñun ñu ñu nekkal joxal ñu ko ba joxal ñu ko vigile yi Mara yal na yàlla dolli sa jàmm jàng ku baax nga ku yaatal nga ku mën a defar nga lenn rek de mooy sa sikk saxaar nga doo wàcc raay ku la bëgg a jàddaloo de nga fudd lool rek kay sa sikk waaye yaa gën ndax lu baax rek ngay def du ñu dem ñun ak yéen xanaa seeti nag ànd ak vieux ñoo nga jëm ca maam mbay laay maam mbay man mu magum kër jong mu aj abdoulaye xalifa bi mu seydinaa isa mu seydinaa ni maamul mahdi mun tazar yo may ma tuuti mu baay moor mu sëriñ Abdoulahi waaye boo ne maam mbay da nga naan maam mbay mu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar ndax njabootu Seydina Limaamu yëpp na baayam defoon rek la def ànd ak ñoom topp leen nu mu leen toppee ci ndigalu jàngale yu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar Cheikh Mbacké Laay buñ ne jox ñun nuyoo bi Seydina Isa looy wax bu ñu la nee joxul ñu nuyoo bi sa baay yu baax yi Mouhamadul Amin Mouhamadul Mokhtar loo ñooy wax Mouhamadul Bachir loo ñooy wax bu ñu la nee joxul ñu nuyoo bi ahlul bayti Seydina Limaamu loo ñuy tontu ñoo ngi nuyu nag ku baax a baax metti tabara madame Daouda Ndiaye professeur ak madam Baro waaye dañuy ànd ak ñoom nuy ji xujja laaya yi mu Chérif Iba Laay mu paparaan mu bàyyi ma njoon mu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar ñu ànd ak maam Mbaye soxna Asi seen laay mu Ibu Seeni mu Seydina Isa mu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar ñu àndandoo ak yéen fekki maam Mbaye laay

نقي بمدح محمد Adja Tuutaan Jaag ñoo ngi lay jox nuyoo bi bu baax a baax Bayaada Touré mu Adja Awa ñoo ngi lay jox nuyoo bi jox ñu ko Habib Niang mu baax mi lool le grand sénégalais le Thiessois waaye jox ñu nuyoo bi nag Asbiram fay te joxal nuyoo bi bu baax a baax sa nijaay Aj Moustapha Diop ak soxnaam Ndey Fatou Lekor ak jinam jigéenam bu baax bi Adja Umu Jóob joxal ni nuyoo bi bu baax a baax Kaafa Ñas ak yaayam Adja Koddu Siise di nuyu As Ndaw borom du kumaan nit ku baax kooku El Hadj Mamadou ñampaar yu door ñoo ngi lay nuyu di nuyu nag sunu xarit sunu lépp colonel Bamba Sall Yacine Ndiaye ca Fatick ñoo ngi lay nuyu Ali seen le grand promoteur te Tëngéej ñoo ngi la jox nuyoo bi El Hadj Kora Fall nuyoo Bangoog waaye Adja Nafi Xuma Mbay Jacques Diop nuyo Bangoog El Hadj Cheikh Kabiru Mbodj mu baax mi loolu ñoo ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu nag waa Pikine yëpp bàyyiwuñu kenn awale nuyoo réew mi nag ci waa pikin waa Pikine ñu nuyu réew mi yëpp. vieux ñu dem seeti sunu waa kër maam Amari Ngoone Ndak. يا أبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله رسول يا رسول الله يا أبيب الله di neex def leen nii mu doon ni ku mu neex waaye mu dal di may neex waaye Muhammadu ibnu Abdallah Rasulallah yaa ka baax waaw yaa Rasulallah yaa Habiballah Makhtar Diouf mu biram mu aaj biraan juuf borom Tiwaawan ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di kenn nag ci Makhtar Ba le ministre sport ñoo ngi lay jox nuyoom nga ko nuyu bu baax a baax nag sama secrétaire particulier Talla Fall ni ko na ma jox nuyoo bi nag njaboot ji yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu bu baax a baax sunu xarit sunu lépp di ku yàlla baaxal lool xam ni moom mooy ma wàdd di sunu président Kër Ma Càngaay xam ni Marème fay Sall mi ci famille boobu la bokk ak sunu présidente Adja Ndeye Rama Wade ñu ngi nuyu Ibrahima Sarr Kanté ca Paris Sofietu yaa Sofi Wade ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di ñaan sunu boroom mu raxas xol yépp tàppe xol yépp boole xol yépp ñu bennoo ànd lillahi wa ila rasulihi te yal yàlla sàmmal ñu sunu lépp bu ñu ŋaangee nar a wax lu xam ne safaan la yàlla téye sunu làmmiñ ba mu bañ a génn ndax làmmiñ fanweeri sàkket ak ñaar la ko yàlla muure jël mbalaanam ci kaw ak ci suuf muure ko ko ngir rek muy wax jàmm njabootu maam Abdoulaye Ndiaye yépp ca Andoulaye ñoo ngi leen di ziar bàyyiwuñu kenn waaye dinañ ànd ak yéen dem ziar nit ku yàlla baaxal nit ko xam ni jàmm rek lay wër jàmm rek lay dox jàmm rek lay wax kooku nag mooy yuusumaa jigéen duur ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay dala jox sa nuyoo bu baax a baax di nuyu sunu doom sunu xarit ajakaa fa ñas mu baax mi El Hadj Modou Khoule nuyoo baa ngoog le grand promoteur nuyu El Hadj Ndiagne mu baax mi lool El Hadj Mor Momar Ciss mairie bu mag ba nga yore yal na ci yàlla téyel boppam may la ci ndam nuyu maire yëpp waaye di ko jox El Hadj Bamba Fall maire Medina mu jotali leen nuyoo bi ñoo ngi ziar ñëpp di saafonte ñëpp xol ak xol. vieux fu ñu jëm kër maam Cheikh Ibra lamp Babil Mouridine ànd ak sunu doom doomu kër gi xaritu kër gi xaritu réew mi xaritu ñëpp moom lañuy àndal nag dem nuy ji maam Fati laay mu bàjjan laali ak Chiré Abdallah waaye di nuyu nag bu baax a baax le de la santé maire de la commune de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr feebar bi yàlla na ko yàlla génne ci réew mi génne ko ci àddina bi yëpp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah Job Donar nuyoo baangoog jox ñu ko équipe municipale bi yëpp waaye jox ñu ko waa Yoff yëpp waaye jox ñu ko waa réew mi yëpp it Adja Ndeye Dom Doy nuyoo baangoog ñu njaboot ca kaw tayibe gi Serigne Touba amul morom géej ëllëg ma dangay yendu mbaa dangay gude lool waaye nanga seede Serigne Touba li taway wolof dafa waroon di yaaram dama nar gaay jàngul du xam borom di nettali ay jaloorem Adja Fat Diop ñoo ngi lay jox nuyoo bi jox ñu ko njaboot yi yëpp waaye ñoo ngi nuyu mag ña xam ni dañ fi nekkoon di def lu baax élagement mbeng matériel lu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu tabax ciy jàkk tabax ko ciy daara suural ci miskini yàlla yi suural ci gor ñi xam ni mënuñoo tàllal loxo maas yal na la yàlla def ngay ganam yàlla na yàlla teerul la boppam yal na yàlla yéege sa maqaama ca bar sàqu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dekk la ëllëg ci keppaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàggilul yépp war na ra war na boppam jaxraan booleel ak rasulullahi nga dëkkee àjjana baax bu demee ñëpp danan ko jooy waaye ñoo ngi nuyu famille Cheikh Balla Dieng Cheikh Magan Ndiaye Socé njabootam yépp ñoo ngi leen di nuyu fu seen maam yi tegoon tànkam lañu teg seen tànk ñoo ngi nuyu nag bu baax a baax ñu àndoon ak ñun waa kër El Hadj Cheikh Moussa Sène ak Adja Seynabou Niass ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax Iba Sène Franck nuyoo bàngoom doxal ñu ko waa Noor Show yépp bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ba juma bii di ñëw incha allah rabbi yal nañu yàlla may ñu fekke ko te tal ko ba mën a toog ak yéen di leen bëggal ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Mohamed yemul ak kenn buñ ko jéem a yemale kenn yàlla ni yemul ak kenn maa ko tànn muy sama tànneef maa tànn ay tànneefam ay tànneefam ci yi way juróom ci maamam ci njabootam ci léppam ku nangu ni daal moo la gën nangul ni léppam a gën sa lépp moo la gën moo gën sa lépp yal nañu yàlla dolli jàmm te def ci jàmm réew mi bi jaay rasul sallallahu alayhi wa def ko ci askanu réew mi jërë ngeen jëf la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur c'est pas que Kiné Lam euh, dañ naan Kiné Lam moom musul tas wala musul def nangam déedéet dama am un bon mari du saaga correct respectable su amee loo xam ne def naa ko ci nit ci kanam mbooloo sax wala dara du ma corriger de dafay bàyyi ba nu toog ba guddi ba may nelaw mu yéema ma def nga lii def nga lii def nga lii. non nee na sax en plein sommeil sax ma ko naan bi lay baal ma wala wala man ko ubbi sama saag rek lu fi nekk rek jëlal te nga sarax ma bàyyi ma ma nelaw.